kenn daaw des lu garaaw mën naa wax ni syndicat professionnel yi nekk Sénégal yépp kenn ëpp lu ci woon ñuy défilé loolu la yàlla dogal wante ren loolu lépp dañ ko teg ci suuf ndax jàngoro yi dafa xaw a kéemaane. xam nga dañuy ñun ñëpp dañuy delluwaat ci yàlla sant yàlla ndax yàlla moo ko dogal parce que premier mai bi ñu ko commencé fête au Sénégal avant l'indépendance la 1938. dañ ko commencé di ko feetu fii ba suñu jon yàlla te amul benn année boo xam ne feetuñu premier mai mais tey ren yàlla dogal na même Europe en France defuñu feet premier mai ay déclaration lañu def comme lii ñuy def nii euh, ndax maladie bi nga xam ne moo fi daanu daanu ci monde bi yëpp sax lay wax kenn mënu ko boole ak feet ndax feet défilé la ñuy wax défilé rassemblement te maladie feer feer bi toll na foo xam ni ñetti nit sax war ñu bokk taxaw wala ñu bokk fu ñu ne ndax dafa doy waar dafay déstabiliser réew xam nga Amérique ci wàllu puissance kenn ëpp ko doole waaye fi mu nekk nii ci jaaxle la nekk ndax solal na leen moo tax ren bi ñuy waxtaanee ci suñu biir ñu syndicalistes yi ak central syndical yi ñu d'accord ci ni nañu suspendre nañu teg premier mai ren ba yàlla génne nu ci situation bii nga xam ni ci la ñu nekk. li nga xam nag mën naa ko wax ci concernant hôtellerie bi ki nga xam ne moom laa yore ñun defoon nañu ay effort ba nga xam ne ci mois de euh, février bi accord yi nga xam ne nekkoon na suñuy revendication ñu war ko dugal ci euh, cahier doléance yëpp yàlla dimbali nañu réglé nañ ko am nañ ci satisfaction totale parce que li jëm ci wàllu augmentation de nourriture dañ kon demande réclamé yokk nañ ko vingt liggéeykatu hôtellerie bu nekk dana fay ko vingt quatre mille par weer ñi gën a suufee daañu fay ku 17000 francs par weer sans compter seen i salaire beneen bi ci topp mooy euh, dañu daan liggéey lu lu ñuy tuddee équivalence équivalence nag dafa naa neexul justifier neexul expliquer ndax ñu bëree bëri bëri ba ci liggéeykat yi sax am na ñoo xam ne comprendre ñu ko euh, dama leen di poser question leen waaw semaine bi ñaata semaine la ñaata jour la ñun ma sept ma ne ngeen di ci liggéey ñaata fan ñun ma six ma leen septième bi mu ne ñu noppaliku. ma leen nag cinq ngeen ci war a liggéey parce que cinq lañ leen di fay c'est-à-dire secteur hôtellerie dañuy liggéey cinquante heures ñu fay leen quarante heures te loolu depuis 1953 la woon gouverneur bi fi nekkoon moo ko defoon muy arrêté gouvernement Sénégal bi ñu fi ñëwee ba léegi ñoom itam kenn dindiwu ko kenn depuis l'indépendance kenn ratifié wu ko mais yàlla dimbali nañu tey ñu koy négocier di ko négocier di ko expliquer ba président patronat bi comprendre ko. en particulier président Racine Sy ci mois de février bii lañu ko signé ni dindi nañ ko Sénégal ci wàllu secteur hôtellerie euh, première euh, le 21 mai le 21 janvier 2021 ci lañ koy commencé appliquer pour permettre patron yi mën a fagaru mën a defaruwaat far yàlla def crise bi ñëw accord yooyu moo doon seeni revendication principale yoo xam ne at mu nekk dañ ko daan teg ci cahier doléance mais mosuñu am satisfaction waaye yàlla dimb nañu ren waxtaan nañ ci suñu biir waxtaan ak patronat bi ba bokk nañ ko signé kenn fat place ci mois de février bii loolu dindi nañ ko Sénégal dootul am ci secteur hôtelier. nañ ko yokk nañu salaire yi aussi 8 à 5 pour cent waaye ñun hôteliers yi dañu am particularité parce que ñun képp ku fi yore hôtel wala restaurant wala lu mën di doon. ak euh, casino yi da ngaa war a nourrir sa waa kër nourrir leen liggéeykat yi ci kaw nourrir boobu su fekkee ne mën nga ne nourrir añ ak reer maanaam deux principaux repas par jour temps mieux soo ko mënul def nag da nga leen di fay salaire xaalis bi maanaam bu dee septième catégorie jëm kaw yaa ngi leen di fay vingt quatre mille bu dee sixième catégorie jëm suuf yaa ngi leen di fay dix sept mille par par mois loolu loolu itam signé nañ ko retraite bi itam. dañu waxoon ne secteur hôtellerie duñu mën a dem retraite 60 ans parce que dafa metti kon te ni ci suñuy liggéey loolu itam rectifié nañ ko fexe nañ ba léegi hôtellerie fu waay mën di nekk da nga liggéey 60 ans donc principalement li nga xam ne moo doon suñu revendication concernant 1er mai régle nañ ko ci mois de février bii passé kon ñun 1 mai dañ ko def symboliquement rek mais wax dëgg yàlla suñuy revendication xëy yeneen kay la war a teg ndax bëgg nañu indemnité de logement ndax ku wax hôtellerie wax foog continuer maanaam dañuy liggéey vingt 24 sur 24 te loolu di wàcc guddi 2 heures du matin 3 heures du matin ci location dafa metti moo tax ñu bëgg aussi patron yi contribuer maanaam accorder liggéeykat yi li ñu tuddee prime de logement loolu nag moo nu desee comme revendication waaye yaakaar nañu ni bu ñu waxtaanee ak patron yi comme ni ñu waxtaanee ñoom ci lépp incha allah daanu déggu ndax président Racine si comprendre nañu